sallallahu wa sallama ala ashrafi xalqillah muhammadin alladi usriya bihi min almasjid alxarami ila almasjid alaqsa alladi burika xawlahu liyuriyahu min ayatihi alkubra wa alihi altayibin wa saxaabatihi alghurri nnujur wa radiya allahu an abdihi wa xadimi rasulihi ahmad ibn muhammad wa wahaba allahu tabaraka wa taala kulla man taallaqa bihi kulla maxtarahu lahum min manaafici dunya wal axira bokk yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo boobu sëriñ xabaan ak sëriñ ahmadul badawi ak mboolem njaboot gi fi yépp di ci tuuru njabootu sëriñ Daam Abdourahmane ñi ma jiitu tudd nañ kilifa yi fi teew yépp mu mel ni mënees naa wax ni genn kër ci kër buntu kër yi sëriñ amul fu ca des ñépp teew nañ waaye nag ñu may ma bala maa sori ma jaale ci turu njabootu sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo daaru rahman di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu jëkkal ko te yërëm te yàlla defal ko ngërëmam la gën a kawe te ki nga xam ne moo wutu yan ba di sëñ Mouhamadul Habib ñu ñaan sunu borom defal ko ndimbal te jàppale ko ci yan bi bokk yi njabootu sëriñ daam abdourahman yëpp ci tuuru xalifaam ni ma ko waxee woon sànq ak mbooleem kilifa yi ñu fi tudd yi te teew fi di suñu kilifa ñi ngi nuyu njabootu sëriñ Mouhamadou Fadil gi yëpp di wax ne lii njabootu sëriñ lu def tey euh, lu ama am solo la dana tudd tuuti rekk ci yenn yi nga xam ne mooy wane solo si nga xam ne moo tax jotaay bi tudde gi ñu ko tuddee sëriñ Daam am solo ci njabootu sëriñ am solo gu rëy rëy waaye damay wax ne fii ñu jaar ñoom dafa mel ni alxuraanul karim lañu dégg roy ko ndax nag sunu borom subhaanahu wa li mu kañ yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lépp teewul nag xam na ni am nañu mu àndaloon te am na ca ñoo xam ne ba muy metti lañu ànd ak moom walladina tabaauhu fi saati l usrati bu mooy ñi àndoon ak moom ca ba muy metti loolu ñooñu dañ ñoo jar di fàttaliku moo taxoon sunu borom naan assaabiquun assaabiquun ulaika almuqarrabuun waaye itam ku jàngat dund sëriñ tuubaa ak i mbindam li ngeen def day dugg ca loola ndax sëriñ Touba bi mu bëggee yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba lab ci géeju bëggam di duus di euh, ay gémmiñam duusi leer ci tagg yonante bi sallallahu alayhi wa di ci génne mu xaabaabal ca ba yàgg mu di def taxaw seetlu ne ah mel ni kuy wax ak boppam ne ne ne ne ne wax boppam soppiliku ñaari jëmm masalan ci waxin benn bi di wax ak bi ci des ne ko ah yaa ngi tudd yonent bi rek di wax ay mbaaxam rek moo ne nag yonent boobu yàlla daf ko waxoon ne ko huwa ay ayyadaka bi nasrihi wa bil muminin wa bil mu'minin lii ngay def li mu rëy rëy maa la jàppale waaye dafa am ñu ma la boole tax nga man ko moo tax nag mu daal di ne ayaa xaadimal muxtaari laa tansa saxbahu fa man yansahum fal matxu matxun muxattau li may wax baax na lool waaye ñii nag su ma leen ci boolewul rek njuum di am kon li ngeen def dégg waxi sëriñ Tuubaa jooju moo tax ngeen gestu xam ne am na ñu ci mat a boole ngeen boole ci sëriñ Ndaam Abdourahmane waaye mu am lu am solo loo xam ne sëriñ Mbàkke Abdourahmane tudd na ko léegi mooy bi ngeen koy def it yàlla dogal na ki doon xalifa sëñ Ndaam Abdourahmane tey ci daaray tarbiya ju sëriñ Fàllu la génne ba sëriñ Fàllu gërëm ko sëriñ Basiiru may xalifa ba sëriñ sëriñ Fàllu la tarbiya wu ba gërëm ko kon mel na ni def lu mel noonu delloo ko njukkal la moom it kon mën nañoo wax ne lii ngeen def tey bari nañu def lu baax ba tey waaye nii ngeen ko defee nag bari déggaguma ko ko defee nii yàlla dogal na ñu dina tudd di tudd sëñ bi waaye lu ëpp ci li ñuy def day mel ni gestu gii nga xam ne moom lay alxuraan wax sëñ Touba def ko léeg-léeg ñenn ñi dañ koy fàtte te mooy geesu ñi ci des alladina tabaahu fi saatil usra loolu nag waa ko sëñ Fallou tey def nañ ci lu rëy rëy lu am solo loo xam ne jàpp naa ne bind lay doon boo xam ne ñu bari danañ ko tariwaat ginnaaw bi diggante sëñ Fallou nag ak sëñ Daam Abdourahmane leen si xew seen diggante dafa rëy te bari xam naa fi may tàmbale rek mooy am na loo xam ne menn mag nee na ma sëriñ Moussa Ka bi muy marsiyaal sëriñ Ndaam Abdourahmane te tudd ko ci li mu tudd li mu doon marsiyaal tax ndax bu ko fekkoon du nangu mu wax loolu mooy dafa am yu bari yu mu doon séq ak sëriñ Touba ci mbiri biir maanaam bi sëñ bi bëggee sanc tuubaa ak li ko wër ak daaru yi yi ko wër dafa doon listixaarloo sëriñ Daam Abdourahmane Lo bi mu ko listixaarloo nag mu gisaale ci mbirum sëñ Fallu gis ne leer la buy waaj a ñëw kon moom moo jëkk a gis leeru sëñ Fallu ci li ko sëñ Touba santoon muy listixaar bi boobee la koy listixaarloo daaru ak ca kanam Cheikh Abdou Far gis mbirum Cheikh Fallou Sultan loolu la la Serigne Moussa Ka wax beneen bi ci des mooy sëriñ Fallou ci loxo Serigne Ndaam Abdourahman la mokkale alquran Serigne Moussa ko wax na ko Cheikh Abdou moo tariloo Cheikh Moustapha tariloo Cheikh Fallou moo tariloo Alaaji Gaawaana kon mu am beneen keneen beneen borom xam-xam boo xam ne dafa doon martial di taalifal sëñ Fallou muy wuldu ubayd rahman nee na qad axada alqurana fi thamani an ilimami abidi rrahmani muqrii kutrihi bila mudaafici ala riwayati alimami naafici kon sëñ Moussa Ka wax na ko wuldu Ibadirahman wax na ko kenn ci dongo yi nga xam ne ñoo jëkk ñoom la sëñ Touba jëkk jox sëñ Daam Abdourahman muy sëriñ Omar Mbàkke Gelongal nee na moo fa jiitoo sëñ lu ñoom juróom benn weer mook sëñ Modou Moustapha sëriñ Thierno Mbàkke nettali na ko kon loolu day wane ne am na nag yu tàmbalee siiw ñu di ko wax ci jamono yii xam nga ne dégg ñëpp xamoon nañ ne loolu xabar mutawaatir la maanaam ne sëñ sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou ci sëñ Daam lañ jànge xabar mutawaatir la kenn mësu koo werante léegi nag danañ jégg yeneen yi wax ñuy gis sax ñuy bind mën a bind ci ñoom di wax fañ jaar te duñ tudd sëñ Daam Abdourahmane euh, loolu nag euh, kon day wane rek ne ki nga ki wax lu mel noonu moom lañuy laaj mu indi lay fu mu ko teg beneen bi ci des ci diggante sëriñ Fallou ak sëñ Daam Abdourahmane sëriñ Mbàkke wax na ko léegi mooy ki sañ ci këram doomu sëñ Daam Abdourahmane loola muy soxna Aïcha waaye itam sëriñ Daam Abdourahmane wax nañ ko fi ba tey tuddee na sëriñ Fallou doom moo topp ci sëriñ Moustapha Lo soxna Muslima jur ko moo topp ci sëriñ Moustapha Lo sëriñ Lamine door caa topp kon ab sëriñ bu jàngalee nit ba yàgg mu tuddee ko doom mooy wane ne naw na ko fonk na ko waaye nag bokk yi ku xam sëñ Fallou xam ko ci teraanga xam ne ku ko lebal teraanga mu fay la loolu moo waral bi sëriñ tu Fallou noppee ci jumaa ji def na nag léegi ñett jàkka moo ma dese mooy sëriñ Mor Diarra bëgg naa koo tabaxal jàkk bëgg na maa tabaxal jàkk sëñ Mbàkke bëgg na maa tabaxal jàkk sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo yàlla dogal na mu tabaxal ko sëriñ Mor Diarra yàlla sottal na bu sëñ Mbàkke Buso yàlla dogal na ña ci liggéeyu bu sëñ Ndaam Abdourahmane sëriñ Moustapha Lo fondement ko taalibeem bii di sëñ Bachiru mu yar ko mu nekk ci liggéey kon loolu lépp mooy wane ne la mu yéene woon sunu borom mi ngi koy dogal. Seex Fallu. Seex Fallu. Fallu laa. Bismillah Fallu. ni ma Fallu. ana soppi Fallu laa.